tegal téléspectateurs yi muy réglementation yi nga xamee ni moo am euh, en termes d'immigration voilà Pape Cheikh xam nga euh, dafa am li nga xamante ni moom mooy immigration irrégulière ak mm. immigration choisie mm. donc euh, immigration nag ñu ngi gis xale yi ñu ngi bëgg a dem mais dem dafa am yoon te boo yeggee ci dëkk ba tamit am na dëkk yi ay loi yoo xamante ni teg nañ ko ñu am possibilité soit delloo si la wala accueillir parce que ñu ngi gis am na xale yoo xam ne yegg nañ mais instant yi ñu ngi si camp de transition yi mm. am na ñu bëri ñu naan euh, président signé na pour ñu delloo si waat leen ñu ngi koy lam-laamee et tout te defe naa coono gënul metti nga dem daj loolu yëpp espèce vie dem ba yegg ñu dellu si waat la te dëkk yi nekk foofu am nañ droit boobu mais euh, balaa ñu ci gën a xuus dañu dégloo ki nga xamante ni mooy soxna Naata Samb Mbacke nekk ci affaire sénégalais de l'extérieur mu wax ñu ñoom ban rôle la ñuy jouer par rapport ak xale yooyu ak immigration bi nga xamante ni mënu <coughs> koo tere doomu aadama nu ñuy tukkee mooy wax bi ban façon la ñu tukkee ak ndax booy tukki yow dangaa war tukki wala li nga war a def fële mun nga ko def fii wala yan anam nga war a toogee sa réew liggéey ko njëriñ fa ak loolu mais tukki moom ala kuli xaal booy seet salaahu salaam fu mu jógee fu mu juddoo ak fa mu nekkoon si suñu référence islamique nga koy xool ci dëkk yu bari continent yi tey bu ñuy wax immigration par exemple Amérique ay portugais ay britannique ñoo ñoom ñoo ko trouvé te bu ñu tukki woon du ñu trouvé continent boobu duñu Amérique tey du am Euh, dafa may naqari may dégg ñuy wax immigration clandestine man damay wax immigra immigration irrégulière te yi ñu gis léegi nii muy am de par sa fréquence ak ampleur bi ëpp na jéggu na dayu donc il faut ñu toogaat ressaisir wu xam ne tukki bi dafa war a am lu lu ko lal mooy da ngay dem pour wuti wala danga am xam-xam di yokk ji sa xam-xam mais nga dem wuti ji visa boo ko mënul nga toog sa réew liggéey ndax man li ma gis de en faisant cinq pays ci monde bi gis naa loo xam ne ñu bari tey ñu ngi bitim réew bëgg a ñibbisi te Sénégal nag am na ay perspectives peut-être que jeunes yi aussi ñu ngi perdre espoir ndax xëy na am na liggéey bu des ci côté famille ci côté état ci côté ñëpp dañ ko wax parce que yar moom ci ci ci famille la jiitu mais ñëpp dañ ci am responsabilité société day yar koñ bi dafay yar gox bi di yar ville bi et cetera et ba ci kaw am na ñu xam ne nii sax am nañu parce que boo gisee ay exemple yi doy waar ñu jàng ba am diplôme di dem ci géej gi peut-être que dañoo xamul mais man soo gisee euh, sama gis-gis li ma gis mooy ñàkk information ak ña nekk fële waxuñu li ñuy gis ak ñi nekk fii xamuñu la nekk fële donc c'est l'inconnu qui attire l'individu defe naa pour muy dem ci yenn aventure yi mais wax dëgg yàlla tukki moom du ñuy mën a tere du lu ñuy mën a def lu du dañ koy réguler dañ ko jaarale si yoon ndax dëkk bu ne am nga droit parce que dëkk àdduna nag li tax mu nekk àdduna euh, the world is flat li ñuy wax c'est un monde plat c'est-à-dire ku nekk rek am nga droit dem fu nekk nit mënut a dëkk Sénégal rek ne duma dem Gambie duma ma dem Mali nit mënut a dëkk Amérique rek soo seetee ne ñoom ñëpp seen richesse tey ñu ngi waxtaane pétrole bu ñu ko soxlaa Amérique mooy première puissance tey dem di wax ak naari naari bu ñu soxlaa leneen dem ci ñoom. Amérique. Ajoot naata euh, euh, Samb. Euh, madame Mbacke euh, doon wax lu am solo muy domaine boo xam ne daf ko miin euh, ñun yàgg nañu liggéey ak moom ci ay projet ci jàppale ay doomu Sénégal yoo xamante ne ñu ngi bitim réew surtout jigéen ñi parce que immigration souvent da nga ciy gis ay jigéenu jàmbaar yoo xamante ne Sénégal daf leen di jàppale ci ay financement donc madam Mbacke di ci def taxawaay bu am solo et voilà c'est c'est amoon na solo mais mën nañu dem seeti ko quand même mm-hmm. pour mu jox ñu juste quelques points mais lii mm-hmm. tuuti la rek ci expliquer pour quand même nit ñi mën a comprendre yoon pour dem. Mhm, parce que en fait euh, comme ni nga ko waxee dafa am yoon bu nit war a am. pour mm. aw pour dem. Mhm. parce que moom expliqué na ni nit. kenn mënu koo tere tukki parce que tukki droit la boo xamante ni nit da ko am mm-hmm. mais euh, dafa am yoon yoo xamante ni dañ ko teg pour nga tukki mm-hmm. c'est-à-dire looloo tax ngay am titre de voyage looloo tax ngay demander parce que ni nga buggee euh, dem noonu la dëkk bi nga xam ne fa ngay dem amee souveraineté mm-hmm. donc dafa am li nga xamante ni ñoom ñooy droit de protéger les frontières am nañ droit d'octroyer des nationalités c'est-à-dire nga dem ba foofu bu leen neexee sax ñu may la d'office nationalité naturalisé la am nañ li nga xamante ni moom mooy droit wu admettre ay nit ñu dugg wala droit boo xamante ni dañ lay delloowaat depuis boo di juste boo yegsee am nañ aussi droit lutter li nga xamante ni moom mooy trafic de migrant c'est-à-dire suñu xamee ni que yow da nga jaar ci yoon boo xamante ni baaxul mun nañ boo yegsee ñu delloo waat la ba pare parce que ñoom dañ koy def déjà pour ñi fa nekk parce que état dafa am rôle de garantie de la sécurité nationale c'est-à-dire ñi nga xamante ni dañuy ñëw xam fu ñu jógee aéroport lu tax ñu koy privilégié ak titre dinañ xam nit bu dugg ci ci dëkk bi dinañ xam kan la fan la jógee ban dëkk affaire yooyu donc bu fekkee da aw nag si frontière yi état bi moom dafay manqué toutes ces informations là par rapport a kii dugg si si dëkk bi mhm. te loolu noonu dina tax bokk na ci li nga xamante ne da leen di poussé aussi ñu ñu ñu rejeté nit kooku mhm. les ñu si bëri tamit bu ñu demee ba yegg suñu leen laajee ban dëkk la ñuy jógee dañuy bañ sax wax dëkk yi ñu jógee mhm. ba pare pour ñu bañ leen delloo benn ñaar aussi dañuy wax ay dëkk yoo xamante ni dafa am nekk ay dëkk yu def ay réfugié wala mu am ay guerre ak yooyu dama dama brûlé très Paris bi jàppee daf ma ko Mahmoud Saleh. foo dëkk ma ne ko Mauritanie. waaw lu tax ah. bañ a jàpp bañ a fay ak man ko ma jàpp rek. donc xale yi des fois dañ leen di jàpp. dañ leen voilà dañuy bañ a wax wala ñu wax. seen passeport yi voilà wala nit gaal bi il que bu dañuy jël passeport ñu pour ñu pour ñu dem mais des fois dëkk bi du neex de. waaw dëkk bi du neex Pape du neex. Ah. Euh, si loolu aussi am na ñoo xamante ne dañuy wax dëkk yoo xamante ne dafa am jéeye c'est-à-dire ay pandémie wala wala guerre wala réfugié affaire yooyu bu boobaa am dafay am loi yoo xam ne dafay dañ koy teg duggee si genre dëkk yooyu duñ la mën a expulser parce que da nga nekk en situation de d' extrême affaire yooyu mhm. maintenant en même temps li indi euh, amalgame si dëkk yooyu par rapport ak accueil bi dafa am yeneen loi yoo xamante ni dafi nekk mhm. organisation internationale de de de la migration di ko di ko di ko définir <laughs> ak di ko mooy nit ki aussi dañuy protéger li nga xamante ni moom mooy droits humains processus migratoire droit de l'homme ak droit humanitaire mm. donc état yi nga xamante ni nit yi dañ fay ñëw dañuy am ñaari problème boobu war a tranché mm. benn war nañ respecter dignité humaine mm. war nañ respecter nit ki éthique ak li nga xamante enfin Euh, li nga xamante moom mooy droits humains wam c'est-à-dire en tant que nit ñu war ko mën a recevoir mu nekk si yenn conditions moo tax ñu leen yóbbu si centre yooyu jox leen ñu sangu jox leen ñu lekk jox leen ay affaires mm-hmm. mais parallèlement aussi souveraineté état bi day jouer mm-hmm. donc moom moo tax nag dafay balancer lu bëri am na nag état yoo xamante ni dañuy signer ay accord ñoom ak dëkk bi ak convention mm-hmm. ñu ngi dégg xamaguma dëgg la ou pas ni que union européenne dafa wax ni que ko delloowaat donc président yi nga xamante ni moom mooy dëkk yi nga xamante ni ñoom nangu nañ ko ñooñu migrants yooyu dañ leen di delloowaat si dëkk yi nga xamante ni moo ñëw te je pense que nit yi yooyu yëpp war nañ si bàyyi xel xam ni que droit bi ñu am tam pour tukki noonu la dëkk yi ñuy dem amee droit bañ leen a accueillir mm. wala am droit refuser leen mm. te loolu seen constitution ñoo moom seen souveraineté ba pare dañuy protégé nit ñi xamuñu fu ñu jógee xamuñu ci lan la ñu nekk mm. xamuñu vraiment lan la mën a indi parce que France ñoom booy gis ñu am yenn problème yi dañuy wax ni que ils ont été de leur Euh, solidarité ni ñu ubbilee nit yi buntu ni ñu naturaliser yu bëri peut-être instant yi am nañ yeneen problème. ils ont dit ça oui ah bañ loolu loolu moom mënuñu ko bañ ndax monde moo ni moo ni toll même Union européenne bi bi ngay bi ngay euh, affaire bi dafa dafa complexe même ñooñu day finance même gars booy ñi nga xamante ni aussi mooy garde côtière yee gars yi nga xamante ni ñooy kii parce que à un certain moment seen xaalis lañ ciy dugal. dañu am benn budget annuel bu nga xamante ne wala mënoo xamante ne ay 10 ans a fexe. Euh, ñenn ñi ñu jéem a fexe ñi nga xamante ay réfugié lañ ñu am ay papier yooyu ñu ñu am ay papier yooyu yeneen beneen domaine bi mooy parfois dañuy boo gisee kaawu Grèce par exemple mën nañu téye ay nit ci benn ay am lañ fu ñu leen garder di xaar euh, ba à un certain moment ne leen ne Union européenne seen xaaj bu dugulee ci ci yëf yi dañuy jéem a bàyyi booy yi ñu génn ñu génn dugg ci fu leen neex donc ni jamono dañ leen utiliser parfois non moo tax bu ñuy wax parfois affaire immigration domaine boobu boo ci duggee dafay complexe sa micro baa ngi immigré ci biir génn ko <laughs> mu ngi jël gaal gi di dem. dafay non day balancer. day balancer benn bi dañuy équilibre rek la ñuy chercher le juste milieu la ñuy chercher mais non ça dépend de la politique étatique am na état yoo xamante ni ñoom seen politique moom mooy accueil moom mooy dañuy mhm. jiital humanitaire dañuy jiital li nga xamante ni mooy sauvegarde dignité des droits de l'homme ak yooyu mhm. noonu. Mhm. mais am na yeneen état yoo xamante ni peut-être du ma tudd yu Europe yoo xam ne ñoo gën a extrémiste nga xamante ni ñoom. nit ñi sax xalaatuñu dem seen dëkk soo fa demee si frontière bi lañu lay delloowaat ils sont carrés ils accueillent personne ils sont ñoom seen nationaliste plutôt que yeneen kii donc ça dépend des conventions et de la souveraineté étatique comme ni ma ko waxee état bu nekk booy gis sax ba pare ba pare may mun a en parlant de souveraineté étatique am na benn point juste bu ma bëggoon taxaw mooy le fait que am ñoo xam ne dañu lay ñëw ne la dama lay utal visa kenn mënul utal kenn visa soo amee papier yi nga war a am soo demee ambassade bi ñoom ñooy décider ndaxam xam dañu lay may wala mayuñu la te y a des gens yoo xam ne dañuy liggéey si kaw nit ñi di lekk ay million wu jàmbur mm-hmm. te boo paree dañ lay dawloo se mënuloo ci dara day perte amul fenn foo xamante ne bind ngeen fa ne jox na xaalis mais il faut que les gens sachent que ñu xalaat amul kenn ku la mun a tey may visa ku dul waa mm-hmm. ambassade bi ak dëkk bi ci kaw nga am papier yi nga war a joxe yëpp mm-hmm. te loolu avant ngay dem ci euh, ambassade bi mi ngi ci site xamante di nga am liste papier yëpp mm-hmm. et de préférence su dee xam nañ am nga liggéey wala famille wala looy retenir si sa dëkk ah. en général soo demandé visa dañ la koy ah. may te léegi ñu bari domaine boobu tamit xam na immigration mooy tax ah waaye souvent kayiti mat duñ la may mm. waaw mais loolu mooy ñoom ñooy xool rek ñooy jéppee waa ambassade yi <laughs> parce que man moom xam naa su ma liggéeyul woon ci bi dinaa dem ci gaal yi non ñii du ñu maye visa aussi des fois après kii toog ci télé mooy il faut prendre les papiers aller dans les sites internet machin des fois tu amènes tous les papiers ñu mat ah ñu mat après duñ la may visa yooyu des fois sa yaram dafay daw seen tampon bu rectangle bu xonk boobu bu ñu ko defee sa visa parce que affaire bi rang bi koo dégg ñu ne bon voyage am na donc kii teg nekk ci ambassade bi il fait comme ça il prend des filles bizarres bon voyage monsieur bon voyage madame désolé bonne désolé ñu lekk sa 45000. bonne journée monsieur. foo dégg bonne journée xale ba jonkoon na jooy. dëgg la ba pare pas cher xam nga lan moo gën a métti aussi boo gisee. bon voyage monsieur bon voyage madame. bonne xam nga lan moo gën a metti en fait. à la limite gis nit yi stress bi ñuy àndal bu ñuy dem jëli ji seen visa c'est-à-dire dafay mel ni yow ah. sa sa àdduna wala li nga xamante day mel ni examen voilà dafa man am naa ku baax kuy ñaanalaate ci tukki yi fii la ne yoori yoof xaw ma waxaan ko mën sax jox leen ma seen pour <laughs> pour en revenir à léegi ñu commencé mais bëgg a dem taxut a mën a dem mën a dem ay tax a dem mhm. euh, malheureusement ou je sais pas c'est mhm. réglementé mhm. nañ ko teg ci yoon gis nga loolu lu waaye tegul ci yoon tamit baaxul dañ koy teg ci yoon rek et puis comme ni ni li Bijou doon wax ñi nga xamante ni dañ siy liggéey sax booy gis dañuy jouer jeu de mots ay facilitation ay aide ay encadrement mais kenn mënu la may may fii man arrivé pay laa def fan yi la <laughs> fay. lii di 4 millions 200. dinañu arrivé payé. Ah, man dama sonn ci sensibiliser bi ay bu leen dem ak toog leen ku bëgg a dem na dem. mais na ko teg si yoon kenn mënul kenn mënul kenn tere kenn dem mais na ko teg moom la bi ñuy évoluer nii sam bi ñu wax na ko kenn mënul tere dem nit ñi ndax nit ñi kenn mënul leen téye. déjà nit dafa bëgg di